أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وذاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo ànd ak yéen rek ci ay bis bu jot di jàngalante ak yéen di fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu ci doon ànd ak yéen ci suñ bind yu génn yépp di ko tënk ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju xadail xaaj ñu doon ci jàngale di ci jàngalante ak yéen ba ci suñu bind bu mujj ñu ngi ci yemoon ci fi nga xam ne fala sëriñ bi radiallahu anhu di dénkaane ci ki nga xam ne mooy ab taalube wala ab dongo boo xam ne mooy sàkku xam-xam ni mu war a jëflante ak ab sëriñam waaye yitte ji nga xam ne moom la war a jëf ab sëriñam waaye bàyyi xel ki nga xam ne moom la war a bàyyi xel ki nga xam ne moo di ab sëriñam ba sëriñ bi radiallahu anhu di ñu wax ne na nga wekk ab sëriñ fa wekk yem maanaam na nga ko wekk na nga ko jox ab cër waaye na nga ko wormaal bu baax a baax a baax ne it ne na nga yittewoo ay aajoom ba lépp loo xam ne moom la aajowoo rek nga fexey dox ca aajoom yooyee ngir mu faju waaye lépp loo man ci liggéeyal ko wala lépp loo man ci jëf defal ko ay addiya bul ko bul ko xeeb lépp loo ci man na nga ko def te yàlla rek a tax waaye ngir xam-xam bi nga xam ne moom lay dugal ci sa bopp ñu yemoon ci sara boobu nga xam ne moo doon saraba yi di weesu waaye it sunu bind bi nga xam ne moom la ñu bëgg a continuer ak yéen tey it ci loolu la jëm ba tey ci naka la taalibe bi wala naka la ki nga xam ne mooy sàkkukatu xam-xam bi naka la war a jëflante ak ki nga xam ne mooy def ci moom ab xam-xam mu di ab sëriñam sëriñ bi di wéy rek di wax ba tey ni wajtani banna na nga moytandiku daxkan ree wa masxan ak fo wa saxab ak coow amaama cheikhika ci kanam sab sëriñ isaarumta dem sàkku nga al adaba ay teggin sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi ñuy moytandikuloo reetaan wala di coow ci sa kanam ab sëriñ wala ngay fof ci sa kanam ab sëriñ nee na su fekkee ne yaa ngi sàkku ay teggin de bu fekkee ne ay teggin ngay jëfe day yooyu yëpp na nga ko moytandiku di ko def ci sa kanam ab sëriñ ci teewaayu sab sëriñ nee na boo toogee ab sëriñ sa sab sëriñ daal na nga fexe yooyu yëpp nga moytandiku ko bul baril coow waaye na nga fexe ba sàmmonteeg bul di ree ba sa kàddu di jug waaye na nga fexe ba sàmmonte ak am fo yooyu yëpp na nga ko moytandiku ci kanam sab sëriñ ndax loolu dafa dàqonte ak ay teggin kon su fekkee ne ay teggin la taalibe bi di sàkku wala ay teggin la sàkkukatu xam-xam bi di sàkku ci kanam ab sëriñam na fexey yooyu yëpp mu moytandiku ko ndax xam-xam bu fekkee ne àndut ak ay teggin mënta jariñ borom kon xam-xam balaa mën a jariñ faaw mu ànd ak ay teggin te loolu dafa bokk ci teggin yi nga xam ne ci sàkku xam-xam war na koo sàmmonte ci teewaayu ab sëriñam ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci alquran naan fal yadxaku xalilan na ngeen di ree tuuti kon ree mënut a ñàkk waaye nit ki suy ree na bàyyi ba gis lu ko jar te buy ree na ca bañ a ëppal maanaam na ree tuuti te noppi na ree tuuti te noppi ndax ree yu bari amut njariñ te doon nañ wax ci ginnaaw ne fa kasratu daxki tumiitul xalba fa xalilana daxka turdi rabba nee na ree yu bari day maanaam day ray ab xol nee na kon na nga néewal say ree ngir nga mën a gërëmloo sa sa borom bi subhanahu wa taala kon sëriñ bi nee na su fekkee ne yaa ngi sàkku ay teggin de na nga fexey ba yooyu yëpp nga moytandiku ko waaye yooyu yëpp na nga ko bañ di di def ci sa teewaayu ab sëriñ mu ne wala takun bul nekk zaltifaati di boroomu geesu ladayhi ca sab sëriñ waza taxarrukin ak ci boroomu ak yëngatu ilal jihaati jëm ca wàlle sëriñ bi radiyallahu anhu ba tey ñu ngi continuer ak ñun di ñu wax ñi nga xam ne noonu lañ war a melawoo suñu nekkee ak suñu sëriñ di war a sàkku ab xam-xam wala ñu nekk ak moom sax di waaj a sàkku ab xam-xam yooyu yëpp sëriñ bi mi ngi ñuy wax naka lañ war a jëflante kon nee na nañuy fexey ba bu ñu baril ab gestu bu suñ buñ toogee ak suñu sëriñ daal bu ñu fenn yitteel fu dut fi nga xam ne fi lañu suñu sëriñ tolloo waaye bu ñu fenn yitteel fu dut xam-xam bi nga xam ne moo ñu tax a jug di ko sàkku si nanu lool rek ñor waaye buñ geestu jëm fenn buñ geestu di buñ geestoo côté bii wëlbatiku geestu fee wëlbatiku geestu fee te bëgg a toog ne sam xel di nga ko def ci li ngay sàkku muy xam-xam ba loola day naa dàqonteeg la nga xam ne moom nga ca bëgg nga man koo am ndax teewlu ga nga xam ne moom nga ca war a teewlu dëgg-dëgg doo ko def kon sëriñ bi nee na nañu moytandiku toog ci suñu kanam ab sëriñ bi baril ay gestu fu ne ngay gestu di fa awale di fa xool wala nga yor ab téléphone bi bëgg di jàng bëgg a nekk ci téléphone bi di manipuler wala nga nekk ci yeneen yitte yoo xam ne maanaam mën naa dàqonteeg sam xel li nga xam ne moom ngay sàkku muy xam-xam bi xel ma nga ko war a jox ak yitte ja nga ko war a jox dëgg-dëgg doo ko jox kon nañuy moytandiku bu baax a baax bu ñu toogee di sàkku xam-xam moo xam barab buñ ko mën di sàkkoo ñu def suñu yitte jëpp ci xam-xam boo waaye ñu bañ a gestu di gestu di jëm fenn waaye lépp rek nañ jël suñu bëri jàkk rek teg ko ci li nga xam ne moom moo ñu tax a jóg muy xam-xam ba mu ne walaatu kasir bul baril alkalaama wax indahu fasab sëriñ bal li fi ne kay kun na nga nekk sa muutan di aji di am noppi waa kon li taxu sa ngir nga làq rus dahu njubam bi nee na bul nekk mukk di bari ay wax ci sa kanamu sëriñ maanaam di wax lu am njariñ nga wax lu amul njariñ nga wax nee na loolu na nga ko moytandiku sa kanam ab sëriñ li am njariñ sax te nga koy wax na nga ko wax mu néew waaye na nga ko wax te yem ca ndax dañuy wax ne xayrul kalaami maa xalla wa dalla wax jëpp de wax ji ci gën mooy wax ji nga xam ne moo gàtt te tegtale gàtt na ba pare te tegtale ndax li nga xam ne moom nga bëgg a wax lépp mën nga koo tënk ci biir te it du tax wax ja bari lool kon na nga fexey boo nekkee ci sa kanamu sëriñ boo demee bay sàkkoo wax na la sa sëriñ sàkku ci yow nga wax waaye sooy wax na nga fexey wax kem aaji ja nga xam ne moom la sàkku ci yow waaye bul wax lu dut mu ne moom daf koo sàkku ci yow te bu ko sàkkoo ci yow na nga wax kem la mu sàkku rek daa di daa di noppi ndax al alquran wala xadis day wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc day wax lu baax te noppi an kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bis penc na ngay wax aw yiw te noppi kon aw yiw boo toogee sa kanamu sëriñ bu ko sàkkoo ci yow nga war a wax na nga wax kem la nga xam ne moom la sàkku waaye su soo ca jógee bul amaat yitte ci lenn luy wax loo xam ne day tax li nga jublu muy xam-xam dara man la cee faat dara man la cee faat kon loolu lépp li ñu tekkale mooy yitte joo xam ne nit ki war na koo jox xam-xam waaye yitte joo xam ne nit ki war na koo jox sëriñ bi nga xam ne moom mooy def ci moom xam-xam mu ne it walaatu saaxib hu bul àndaale ak moom bilaa tab jiilim ci lu ak màggal fii zamanin ci jenn jamono que da bi haasal jiile ni ki ni ki jikkooy maas ñi nga xam ne ñoom lañ di dundal jamono ji ne na kon bul ànd ak sab sëriñ mukk te doo ko màggal màggal sab sëriñ nag mooy lan mooy deel fexey lépp loo xam ne mooy toogukaay bu nooy def ko ëffal lépp loo xam ne moo di aw ñam wu baax lépp loo xam ne moo di aw ñam wu neex def ko ëffal lépp loo xam ne moom nga ko mën a yenul ci ay aajoom ci bu ngeen àndee loolu lépp na nga ko jël nga gàlloo ko ci sawloos nga def ko te lan ngir yàlla rek tax waaye nga def ko ngir lan ngir xam-xam bi nga xam ne moom lay moom la lay jox waaye nee na kon bul def ni maas yi nga xam ne ñoo fi nekk jamono ji nit di yow nit di def ci yow ab xam-xam ba pare te foo wëlbatikoo di wax ci moom lu ñaaw wala nit di def ci yow ab xam-xam ba pare te foo wëlbatikoo di ko sànni ay xeer wala teggin ya nga xam ne moom nga war a jëflante moom dëgg-dëgg doo ko def nee na loolu nañ ko moytandiku bu baax a baax a baax ndax nit ki su fekkee ne yàlla dogal na xam-xam bi muy sàkku mu bëgg cee jariñu ki nga xam ne moo koy koy jox war na koo di màggal bu baax a baax waaye war na koo wormaal war na koo jox yitte ba lépp loo xam ne mooy aajo mu dox ca di ko di ko di di ko fajal kon loolu li muy tegtal rek mooy am solo goo xam ne ab sëriñ am na ko solo waaye yitte joo xam ne sàkkukatu xam-xam bi war na koo jox li nga xam ne moo di ab sëriñam moo tax mu ne bul àndaale moom lu dul ne da nga koo màggal maanaam lépp loo xam ne moo aajo woo màggal sa diggante ak moom na nga ko jëfee waaye bul def mukk ni maas bi nga xam ne ci lañ nekk jamono ji nga xam ne sa jàngalekat dalay jàngal ba romb nga tàmbali di wax ci moom loo xam ne yëllut wala ab jàngalekat taxaw ci sa kanam di jàngale nga nga koy weddi wala i demee noonu te yooyu yëpp bokkut ci teggin yoo xam ne nit ki war na koo jëflante ak ki nga xam ne moo koy jox ab xam-xam mu di ab sëriñam mu ne laa tajaalanhu bul ko teg misla saaxibin mu mel ni ab àndaale xadar ba teew na nee na bul def mukk sab sëriñ mu mel ni ab àndaale maanaam bul ko def mu mel ni koo xam ne daal sa moroom la moo xam ne fu ngeen jëm yéenay ànd di dem nee na bul ko def mukk illa lazi ndare la nga xam ne laa budda mënta ñàkk min hu ci moom min darar ci ay ci ci ci loru nee na sa sëriñ de bul ko jël mukk di ko def ñu mel ni ab àndaale ak yow nga xam ne doo ko teg fenn doo ko respecté yow daal da ngaa jàpp ne kii sama moroom la ñoo ànd di maasendoo wala ñoo ànd di defandoo nangam loolu lépp nit ki daf ko war a moytandiku ci digganteem ak ab sëriñam su demee ba fekk ne mënta ñàkk àndaale ak moom buy ànd ak moom na ànd ak moom ci ay teggin waaye na ànd ak moom ci worma na ànd ak moom ci ak màggal ko waaye bu mu ko doyadal mukk bu mu ko ñàkkee teggin mukk bu mu ko ñàkk wormal mukk ndax yooyu day tax li nga xam ne moom lay sàkk muy xam-xam yitte ja nga xam ne moom la ko war a jox même bu ko joxee la mu tee séentu mën na ko bañ a am ngir worma ji nga xam ne moom la war a sédd ki nga xam ne moo koy def ci moom daf ko séddut worma jooja moo tax mu ne wasami na nga déglu wasami na nga déglu allazi ca la nga xam ne dallaka tegtal na la alayhi ca moom mu baadiran ngay aji gaawe walaw abatku doonte bañ na ko nafsaka sa bakkan nee na lépp loo xam ne moom la la sëriñ bi di la di la digal daal na nga na nga na nga teewlu te xerawlu déglu ko waaye na nga gaaw jëm ca la nga xam ne moom la lay digal ngir sëriñ bi nga xam ne moo tegee ci aw yoon moom du la digal lenn loo xam ne daf lay lor waaye luy baax ci yow loo xam ne daf lay yokk rek moom la lay digal kon donte ne lim lay digal sa bakkan bañ na ko waaye xam nga ne lii mu lay digal aw yiw la donte ne sa bakkan bañ na ko na nga jaayante ak sa bakkan ba fexe ba defe ko ni nga xam ne noonu la la ko sante kon li nga xam ne mooy nasaaix yim lay jox moom sa sëriñ wala taw jihaad yim lay jox yooyu yëpp na nga ko bàyyi xel te di ko jëfe comme li nga xam ne noonu la la koy tegtale donte ne sa bakkan bañ na ko na nga jaayante ak moom waaye na nga xeex ak sa bakkan ba li nga xam ne moom la lay digal te lépp di lu baax lépp di loo xam ne dalay gën a day gën a tax xam-xam bi ngay sàkk gën a bari gën a barkeel loolu lépp lu mu la ci digal na nga fexey nga xeex ak sa bakkan ba def ko wanzur te nga xool ilaa ma jëm te la nga xam ne an bu walif ko xad naxa yaaka tere xad naxa yaaka tere na la ko wa min hu juge ca moom firra na nga daw wàccanit te nga moytandiku xawaaka sa bakkan nee na na nga xool lépp loo xam ne moom la lay aaye moom sëriñ bi te mu dëppoo ak li suñu borom subhanahu wa taala aaye nga koy bàyyi waaye lépp loo xam ne moom la lay digal na nga fexey di ko def na nga xam ne noonu la la koy digale te mu dëppoo ak li nga xam ne mooy digale suñu borom subhanahu wa taala te lépp loo xam ne nag sa bakkan bëgg na ko na nga ko daw ndax bakkan lépp loo xam ne moom la lay bëggal li ca ëpp ëpp du doon loo xam ne lu baax lay doon lépp loo xam ne nit ki bakkanam daf ko bëgg daf ko war a daf ko war a xañ loola ngir lan ngir ne bakkan moom du ànd ak nit ki mukk ci li nga xam ne moo neex suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne wanzur na nga xool ilaa ma jëm ca la nga xam ne anhu walif ko xad na yaaka tere na la ko wa minhu tukkee ca moom firra na nga daw wàccanit te nga teet na xawaaka sa bakkan nee na na nga moytandiku sa bakkan bu baax waaye lépp loo xam ne moom la la sëriñ bi tere moom mi nga xam ne mooy def ci yow xam-xam nanga ko moytandiku ndax li nga xam ne moom la lay tere de mooy tere suñu borom subhanahu wa taala rek kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne képp koy sàkk ab xam-xam war nga koo bàyyi xel di ko jëfe sa diggante ak sa sëriñ waaye di ko màggal di fexey di ko liggéeyal lépp loo xam ne moo yell sa diggante ak moom ci ay teggiin nga koy jëfe waaye di ko bàyyi xel bu baax a baax jox ko yitte waaye jox ko martaba mi nga xam ne moom nga ko war a jox su ko defee xam-xam bi ngay sàkku soo ko amee boo paree mën a barkeel waaye nga mën cee jariñu bu baax a baax a baax a baax mu ne yaani li mu jublu annahu naka moom yan haaka dana la tere ani dax ki wali free wa kasratil mashi ak baril am po wa sax bi ak coow bi xadratihi ca teewaayu sab sëriñ wa kasratil iltifaati ak baril ak geesu maahu ànd ak moom ne na moom mii day li mu lay tere ci bëy dii de mooy mi ngi lay tere ngay toog ak sab sëriñ bi ree ba sa kat bi jëm kaw su fekkee ne dem nga sax ba gis lu la war a reeloo te nga war a ree ne na nga muñ rek waaye bul ca ree ba sa kàddu bi yug ca kaw ndax loolu dafa dàqonte ak ay teggiin lépp loo xam ne moo di coow lépp loo xam ne moo di am po soo toogee sa kanam ab sëriñ sab sëriñ bu teewee nga toog ci kanamam na nga sàmmonte ak yooyu yëpp ba doo ko def te nga baril ab geesu bañ a baril ab geesu waaye bañ a baril am fo ci kanamam moo xam lépp loo xam ne mën naa andi sam xel dootul nekk ci li nga xam ne moom ngay sàkko mooy xam-xam ba yooyu yëpp nga dàqonte ak moom ba doo ko doo ko def moo tax mu ne waan an tajaalahu ak ci nga bañ koo def ka saaxe bi ni ki ab àndaale mu mel ni sab àndandoo boo xam ne da ngay jàpp ne kii daal sama morooma lu ma sañ a def sama bopp sañ naa koo def doo ko wormaal doo ko sédd cër bi nga xam ne moom ko ko war a sédd yooyu yëpp tamit nee nañ ko moytandiku illa ma lu dul la nga xam ne nag illa ma bud illa ma lu dul la nga xam ne nag laa budda mënta ñàkk min hu ca moom mi na daruraat ci ay lor su fekkee ne nag ànd gi nga ànd ak moom moom lu mënta ñàkk la lor moo tax nga ànd ak moom bu boobaa tamit na nga ànd ak moom ci ay teggin waaye bul ko def mukk mu nekk àndandoo boo xam ne da ngay jàpp ni kii sama morooma lépp loo xam ne moom moom laa war a def ci sama bopp rek moom laa war a def ci moom bu boobaa loola mën naa indi njuumte sa diggante ak moom ndax bu boobaa mën naa tax cër ba nga xam ne moom nga ko war a sédd dëgg-dëgg mën naa des wa an tastamia ak ki ngay déglu jamia ma mbooleem la nga xam ne yamuru ko dana la ko digal bihi ca moom watu baadira te nga koy gaawe wa inkarito doonte sib na ko wala bañ na ko nafsu ko sa bakkan wa an tandura ak ci ngay xool ilaa ma jëm ci la nga xam ne yan xaaka tere na la ko anhu walif loola wa tax tarisa te ngay wattu min hu ca moom wala taqrubhu te bul ko jege abadan ba faw ne na mi ngi lay digal tamit ngay déglu lépp loo xam ne moom la la sëriñ bi digal sëriñ bi nga xam ne moom ngay sàkkoo ci moom xam-xam lépp lu mu la digal na nga koy bàyyi xel te di ko jëfe waaye lépp loo xam ne moom la la tere na nga koy bàyyi xel te di ko moytandiku ngir li nga xam ne moom la lay digle mooy ndigalu suñ borom yi waaye li nga xam ne moom la lay tere mooy li suñ borom subhanahu wa taala tere kon lépp lu mu la digal na nga koy dégg te di ko bàyyi xel te di dox di ca jëm di gaawantu sax di ca jëm bala laa seytaane fëkk waaye lépp loo xam ne moom la la tere bul ca bàyyi xel mu bul ko jëfe mukk na nga gaaw bàyyi ko bala la caa seytaane poussé ba nga man caa ba nga man caa dugg ba nga man caa tàbbi te muy loo xam ne gënut kon nee na na nga teet lépp loo xam ne moom la la tere daal na nga ko teet waaye bul ko sax jege bul ko sax jege kon sëriñ bi lu mu la digal na nga ko def waaye lépp loo xam ne moom la la tere na nga ko na nga ko bàyyi ndax sëriñ boo xam ne dafa jàpp ci njàngaleem lislaam jàpp ci njàngaleem diine su lay digal du la digal lu dul lu la suñu borom subhanahu wa taala digal waaye bu lay tere du la tere lu dul loo xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala tere kon ñu ngi tuub bu baax te jégglu di wax ni in uridu illa al islah ma sata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala